même leeral TV sax ah ci complot bu leer ma wax leen ko tey leeral TV ci boppam man Adama may wax ci complot bi la bokk yow télé yu bon yi kan moo leen di woo lii la preuve la leeral TV kan tele yu bon yi xanaa kan moo woo kan boo dee wax li ngay wax ñor la wool presse bi ñu ñëw wool presse bi ñu ñëw ba leeral TV leeral TV kan moo ko soxla kan moo soxla ay leeral yu bon yi kan moo leen di woo kan mooy woo télé yu bon yi barki alxuraan karim leeral TV sax ci complot bi la bokk Leral TV man maa wax man boos yéen sax ci complot bi ngeen bokk lii rek preuve la lii rek preuve la lii kese lii kese preuve la lii dong kan mooy woo ñi télé yu bon yi Sonko da gis muy waxee ci tele yi da ngaa gis Macky di waxee fii kan mooy woo tele yu bon yi deuxième point bi may ñëw Adji Sarr xool leen bu baax gis ngeen ci kaw taabal bi mikoro moo fa nekk ak feuille bi nga xamante nii moom lay tiim di liir maanaam feuille bi moom lay tiir di liir takk ay écouteur di déglu yaa ngi dégg léegi nag xam nga nit ñi léegi danoo yeew parce que gis nga ay boo ko takkee boo dee déglu mënoo fixé di xool nit ñi boo xoolee nit ñi rek da ngay da afale moo tax gars yi di def rétro di ko arrière moo tax mu sëgg noonu mel ne tungul yi naan nii dayu ba yi gisu leen ko parce que boo xoolee maanaam bu dee da fixe di xool nit ñi da ngay afale maanaam liñ lay wax moo tax ñu koy arriéraat bu fenee maître El Hadj Diouf danaan foofu baaxul gaa yi arriéraat affaire yi benn montage bi cottu ndeyam baaxu ji lu salte ngeen jot déjà seen montage bi baaxul bon na bon goo xamante si nii moo tax dañuy dagg parti goo xamante si nii moo tax dañuy dagg parti di ko dagg seen montage moo njëkk a salte seen montage bi sax war naa mën a gën a doon professionnel mais video bi ni ngeen ko tourné baaxul salte na trop vidéo bi salte na montage bi dese naa leer dafa salte trop trop trop aayu leen doo yéen du ngeen ay professionniste daal ayu leen ayu leen montage bu salte ngeen def montage bi dafa salte léegi beneen côté bi ni ñëwaat mooy euh, gis nga Adji Sarr ay duulam dese naa am harmonie maanaam ay feni aji dese naa am harmonie léegi gars yi bu loolu jàllee dañu ñëw ci partie vidéo yi partie vidéo yi la ñëw partie vidéo yi bii vingt une la bii huit la bii vingt deux heures la déglu leen ma bu baax maay wax parti vidéo yi bii vingt une la bii vingt deux heures la bii vingt heures la ñetti heures yu bokkul la Sénégal kañ la fa heure boobu jotoon parti vidéo yi laa leen waxagul vingt une heures benn partie deuxième partie vingt deux heures troisième partie huit Sénégal muy vingt ñetti partie yi ñoo nekk ci vidéo yi léegi gars yi dañ koy def point par point yaa ngi dégg point par point lañ koy def léegi ñu ñëw comme tey jii euh, nu ma leen ko mën a waxee waay pour mu gën a leer numa ma leen ko mën a jëlale pour mu gën a leer mais loolu da ngeen ko xam sax euh, xool leen parti bii nii vingt deux heures la vingt deux heures vingt sept parti bii parti bii xool leen fii bii nii leerul bu baax mais yaakaar naa vingt une heures la dégg asafur la vingt heures bii nekk vingt vingt xoolal ñetti bàtt la maanaam ne screen bi du leer fii mais pour ma wax leen ko benn bi 22h la mën ngeen koo xoolaat benn bi vingt 22h la benn bi 21h la beneen bi 20h la Sénégal ñetti parti yu bokkul. bu nu jàngatee vidéo bi bu ngeen xoolee bu baax xoolaat vidéo bi ngeen jàngataat vidéo bi ñetti parti yi yii fenêtre yi danoo tëju parti yeneen yi fenêtre yi danoo ubbeeku yeneen parti fenêtre yi danoo ñuul yeneen parti yi fenêtre yi amul yu ñuul xam nga li ma la maanaam yii fenêtre yi danoo tijjeeku yii fenêtre yi danoo tëju yii fenêtre yi daa am lu ñuul yee fenêtre yi amul lu ñuul comprendre nga maanaam ni ñu tourné seen clip bi maanaam clip bi ni ko tourné moo baaxul maanaam organisation clip bi moo desee professionnel xam nga gars yi léegi danoo yeewu maanaam gars yi euh, léegi danoo yeewu quoi maanaam affaire de technologie dañ cee yeewu parce que rawatina ñun ñi nga xamante si nii ñoo nekk ci kaaw bi waaw ñun ñu nekk ci kaaw bi danoo yeewu danoo xam lu bari moo tax instant bi kenn mënul te day sunu bopp bi jàmm lan soxla Sénégal ma ñëwaat jaay yi Adji ay duulam dese naa am harmonie deux aji ku ko xool fixé ko xam ne li muy wax du ay waxam ndax moom ci boppam moom aji nekkul en l'aise troisièmement aji Sarr sa promoteur amul expérience quatrièmement Adji sa sécurité laa yërëm parce que genre yu mel nii trop tard mën nan la gàggaatal wala ñu wala ñu rey la wala kenn xamul daal sa sécurité ci boppam moom laa yërëm soo leen jàngatee vidéo bi lii ma leen wax moom moo ci nekk nit ki kenn du ko topp ba mu sës nee na dafa ëmb nan aj dossier bi ba doom di judd ñu def test d DAN la xawma NAD nan aj dossier bi nii la demee jàngal leen vidéo yi bu baax maître El Hadj Diouf nag lii lépp xam naa moom lay doon léegi nag sama appel yi may def tey dinaa jéem a contacter maître El Hadj fekkee jëluma dinaa woo ko sës si moom wala ma woo koo xam ne moo bokk ak moom ñu xool nan lañ koy réglé yaa ngi dégg man maay wax nag loolu laa amoon si lu may wax aji nekkal nit nit ku baax da gore képp kuy deru jigéen aji yaa ngi salteel deram jigéen da ngay gore jox nan la xaalis wala joxuñu la xaalis loolu intéressé wuñu buñ la joxul xaalis tamit yaa ngi ciy séentu xaalis parce que bu dee loolu Sonko lañ ko tuumaal ñu ne dëgg la ah fun jaar danañ la jox ay ay affaire yoo xamante si nii maanaam bu dee xaalis état bi daf koy dagg wala dara mooy loolu nit dangay gore gore moo gën gore di bu la tax a naan fóotit da ngay gore nit goreel ba ba ngay dee boo ñàkkee goreel nit da ngay doomu aadama da gore bul yàq deru jigéen jigéen kenn du yàq deram jigéen ñi fi mu toll nii Sénégal danoo rus aji billaahi danoo rus dangaa dangaa saboote deru jigéen ñi jigéen ñi danoo rus danoo rus trop danoo rus quoi léegi gars yi ñu dugg ci appel yi man loolu laa war a noox ci aji ten noonu la demee ok ñu dugg ci appel yi réew kenn du ko tas fii senegal la dëkku jàmm la Serigne Touba moo fi nekk maam El maalik Malick Bou Kounta maam El Hadj Malick tubaa Touba Xaadim Rasul ñooñu ñoo fi tëdd te ñooñu dañ leen a war a wormaal ndax liggéey nañ ci réew mi loo xam ne tey fa dell léegi kooku yow sa réew nga am ku mel ni kooku yow kooku doo ko doo ko doo ko balaa ay nigérien ñëw di sa di jël Baye Niass di ko teg ci kaw yow mi nga xam ne yaa moom Baye Niass yow yow yow la Baye yow fi nga ne la Baye yow loolu doo ko wormaal loo yee fitna luy fitna ci réew mi ñun taluñu ay xeexaa ñu ay xuloo xoloo osa yi ñu yàq doomi réew mi man ñi fa doon liggéey doon ay sénégalais osa da nga faa gis tubaab bu fay liggéey ñi fa nekk ay sénégalais doon fa liggéey ñooñu tey fan lañ jëm lépp rek ci coow yi coow yi fay na luñ ko fiy taalaatee di ko indi ci dara lu amul bopp amul geen luy loolu nañ ñu may jàmm ñun dañoo bëgg a dund réew mi dañoo bëgg a dund dañoo namm dund dañoo namm dund nekk ci jàmm am na ñoo xam ne tey mënatuñoo jël seeni xaalis ci banques yi ñu tëj banques yi zemi yi sonn nañu population bi sonn nañu xeex dafa metti xeexuñu xeexuñu xoolal américains yi waroon ñëw fii vacances soo waxee ñu ne la Amérique dafa Sénégal dafa am xeex loolu du ndam ci ñun du sac ci ñun xoolal italiens yi soo waxee ñu ne la dewuma vacances Sénégal dafa am guerre pour lan guerre lu tax ñu bëgg koo guerre ci affaire yu ñàkk fay la lu tax ñu koy guerre lii nii nañ ko tëj lii moom nañ co lu tax ñu yeeyaat coow lii sax man li ma jaaxal mooy Thione sekk barki démb la gaañu même pas trois jours ñëpp di ko jooy àdduna bi yëpp di ko jooy barki Cheikhul Khadim mi te kenn kenn mënul wax ci àdduna ni deewu Thione Seck bi bettu la kenn ci réew mi rek bu ma mënee wax ni doo deewu Thione bi bettu la ma xam ni yow naafeex nga deewu Thione Seck bi ñëpp la bett léegi même pas trois jours saraxalaguñ ko sax ñu ne fi di yeeti lii problème ñu yee lii ngir li laay war a suul yi may leen ñu jàmm dimbali leen ñoo coow yi ñu nekk ci jàmm lañuy dund ñun dañuy dund armée bi sonn nañu gendarmerie yi sonn nañu euh, population bi sonn nañu ñun sonn nañu ñëpp sonn nañ jàmm lañu bëgg moo tax kilifa diine yi wax ci balaa paix am bu doon ñuy yee fitna rek réew mi du jëm kanam nañu bàyyi yee fitna ngir lillaahi wa rasuuli te jàppalante te doxal réew mi lan moo fi jar lii moo fi jar lii di wax di koko kokeeg di ñokki ñokki di nit ñi du ñu ay dof bàyyi leen ni ngeen def may leen nit ñi jàmm ñu ñu nekk ci jàmm dañoo bëgg a bégee man de damaa bëgg a bégee moroom dañoo bëgg a bégee réew mi président na bàyyi na lépp yaa ngi dégg ñëw na taxaw ne bàyyi na dëkk bi bàyyi na yoon yi dañuy ubbi le 19 xaw ma dañuy ubbi dëkk bi nit ñi nekkaat ci jàmm nit ñi nekk ci jàmm dina yëkkati xaalis bari teg jeunesse bi liggéey loolu lañ soxla ci réew mi loolu kese mooy doxal réew mi nañu ubbi réew mi nit ñi dox liggéey yi bari nit ñi liggéey am ay koppar am ay xaalis nekk ci jàmm taluñu ay xeex taluñu ay xeex ak lacrymogène xoolal GIGN bi loxo bi dagg ñu amaat beneen civil loxo bi dagg nit ñaa ngi tëdd hôpital feebar nit ñi nekk ci nañ nekk ci jàmm te ngeen bàyyi yi mooy coow lii ngir lay war suur may leen ñu jàmm ci coow yi moo fi jar lii dañuy ñaanaat président bu dee dafa am ñu nekk sa ginnaaw di di di ñaaw da jëlee leen fa jëlee leen fa président képp ku toog fii ci réew mi pour indi fitna ci réew mi président jëlee ko sa wet bul ko teg sa wet ndax yow mi dem ba génn tey ne da ngay teg ay milliards ci kaw taabul bi pour jàppale jeunesse bi am na loo bëggal jeunesse bi fu mu nekk nii fu mu nekk nii sur présent mais koy koy ñooñu noonu bu ko yàq ni di yee fitna jëlee leen fi fitna baaxul nañu bàyyi fitna luy loolu luy fitna dimbal leen ñu ngir lillaahi wa rasuuli yi dañoo bëgg dund lekk lu neex nan na man dox ba heure bu ñu neex kenn du ñu agressé kenn du ñu sonal kenn du ñu sànni xeer kenn du ñu laal yee fitna ah dimbal leen nit ñi taluñu lii man seetaanuma lii sax ndax bëgguma yi fitna fitna baaxul ci réew dañoo ay kilifa yu fi ne nañ leen war warmaal ngir lii laay war a suuli yi man taluma lu bon lu rafet rek lañu tal te lépp lu ñuy woote biir Sénégal jàmm lay doon nañu bàyyi fitna bi te indi jàmm ji nañ indi jàmm ñu nekk ci jàmm ñun ñëpp jeunesse bi liggéey milliards yooyu président wax ñu ne ko teg ko ci table bi ubbi ay entreprise jeunesse bi liggéey xaalis bi bari kenn du tal kenn bu xaalis bi baree kenn dootul tal wax ci nit kenn dootul tar yàq nit kenn dootul def nit lu bon kenn dootul wax ci waxi waxi nit liggéey rek ngay tal pour lijjanti sa bopp loolu rek la ñuy ñaan président bi mu indi xaalis bi teg jeunesse bi liggéey yii yëpp ay fitna yi yëpp ni ko fi yee mu jëlee leen fi jaajëf